Sénégal chanteur bii di Wally Balago Seck di artiste compositeur waaye tamit di interprète ki nga xamante ne mooy Wally Balago Seck l'international golden boy de la musique sénégalaise dafa daal di am ab choc fi nga xamante ne moom mooy Maroc naka noonu rek daal ñuy daal di xam le mbir mi nu mu daal di demee muy dafa daal di jóge concert am ba noppi di daal di ñibbi ak ay xaritam ab oto rek dab leen daal di ko fël ci ginnaaw ba noppi tamit seen oto daal di dal ci beneen oto oto ba nag yàqu na lu daal di xamle amul kenn rek daal ku ci jëlee ay gaañu gaañu naka noonu ñuy daal di xamle artiste bii di Wally Ballago Seck dara dalu ko mu ngi si jàmm waaye tamit li ñu daal di xamle rek daal muy li nga xamante ne moom mooy oto bi ko daal di mbëkk da ko daal di topp dipp ci concert ba noppi rek daal ba ko daal di mbëkkee dafa daal di daw loolu lañ daal di xamle waaye li nga xamante ne rek daal moom mooy xibaar gilee kan moo mbëkk ak nag la ko mbëkkee danañ ci ñëwaat waaye li ñu daal di xamle rek daal muy Wally Ballago Seck mi gannaaw ab turne yi nga xamante ne daf koy def bitim réew ca Maroc la daal di tàmbalee waaye li nga xamante ne rek daal moom mooy concert gi ni mel dafa daal di pare ba noppi di daal di ñibbi eh, ca la ko lii daal di dalee. nekk accident bi ne moom la def Maroc Casablanca concert bii jàll ma wax leen ba mu da doon ñibbi otelam dugg ci otom benn oto moo ko dab mbëkk seen oto mu def accident dafee wu ci concert bi de déedéet ba waale tëggee ba jeexal di dem otelam la ko dab mbëkk leen Ballago Seck nag dafa daw mais affaire soxor yooyu pour lan la kenn xamul lu ko def ba tey nii kenn xamul kan moo ko def yaa ngi dégg mais nag mi ngi sant yàlla alhamdulilah Almeria dina am le 14 incha allahu rabbi le 13 Barcelone du ko tee am waale mi ngi sant yàlla bu baax.